fondamentale recherche développement xaalis boobu la ñuy pasar pasaree moo tax sénégalais il faut ñu yeewu ñu doon dugg ci kaar yi leen di yóbbu Fuuta ak di leen yóbbu Kaffrine nañu xam ni xaalis bi leen waroon faj xaalis bi leen waroon a jox liggéey seen doom xaalis bi leen waroon tabaxal ay tali xaalis boobu rek la ñuy jël di leen di leen dugal di leen yóbbu perte buy am yéen rek a ci perte ñoom perte ñu ci dara ndax jógewul seen poche ngir yàlla na sénégalais yeewu benn yoon réew caaxaan waaye caaxaan gi du rek caaxaanu om politique yi dafa am lenn ci askan bi yu leen topp ci loolu mooy premier jàngat bi ñaareel bi mooy il faut ñu accepter débat di am parce que réew mi dafa am lu fi am loo xam ne man kenn duma ko mën a poser mooy su dara amee rek ñu ne ñoom nii lañu bëgg ñëpp xalaatee foo jaar ñu ne la ñu joxañ ne ne la ni nga war a xalaatee ba pare nag def benn propagande médiatique boo xam ne nit ñi sax dañuy ragal wax ndax ku wax ñu ne waaw moom de dafa contre lii wala moom de dafa lii mais demal France demal Angleterre demal États-Unis demal man chaque jour damay toog taal chaîne yi di seetaan suba ba ngoon jot ay débat la médecins yi toog débat homme politique yi toog débat ñii ne d'accord na ñii ne d'accorduma c'est ça noonu la société doxee te war a nangu ñu ne war a nangu nii Sénégalais yi dañu am ay question ñoom ñoo war a génn tontu question yooyu yi am nañ sañ-sañ am question ne ah man de ñàkk bi bëgg naa ci xam lii balaa ma ciy dugg bëgg naa ci xam lii ñun duñu ay bàyyi ma yoo xam dañ lay tàkk rek yóbbu la ne la ay wax li may wax nag li ma ci gën a bëgg a leeral mooy man contre ma vaccin contre ma vaccin de bi ñu juddoo ba léegi ñoo ngi vacciné wu te vaccin yooyu amul benn bu ñu ci defaree Sénégal à ma connaissance wala docteur donc problème bi du est-ce que contre na vaccin wala contre ko gëw moo it ni vaccin bi complot la ndax bu doon complot ñu ko defar duñ ko xëccoog ñun parce que xel day loolu lay jëriñ bu dee ñoom ñu ngi koy xëccoog ñun ba ñun mënuñoo jot ci vaccin bi ça veut dire que ñoom jàpp nañ ni vaccin bi lu baax la ba tax ñu koy def kon loolu dama bëgg mu leer balaa parce que sénégalais da ngay génn fii rek waaw moom nee na moom nee déedéet damay wax lu leer contre ñu principe bu vaccin àdduna dafa dox dafa ak ni muy doxee dafa gaaw science dafa dox médecine bii vingt ans vingt cinq ans trente ans ci gannaaw ku la mënoon ku la waxoon opération éveillé nga ne xanaa ci wérul waaye tey ñu ngi koy def kon vaccin it bu dee ñu ngi ko doon defar si 15 ans vingt ans science mun na dox ba ñu defar ko ci anam bu gën a gàtt waaye buñ ko génnee nag kenn ku ne balaa nga koy ñàkku am nga sañ-sañu laaj yi nga xam ne lu lënt la ci sa bopp am nga sañ-sañu laaj ñoom lii seen responsabilité mooy ñu tontu sénégalais ci laaj yooyu dalal xelu sénégalais waaye kenn amul sañ-sañu laaj ñëpp nañu dem rek vacciné wu man nag bi ma ci tollee damaa laaj samay laaj. liggéey docteurs yi infectiologue yi keneen ak keneen bokk na ci laaj yi ma laaj mooy est-ce que mën nañ ma wax ñàq bi ku ko ñàqu ñaata weer la lay couvrir la couvrir parce que su dee décideur politique nga boo waree engagé sa peuple ci dara war nga xam ni lii à cour moyen et long terme lan la ba léegi aw tontu ci laaj boobu laaj naa docteur yu bëri ñi ci gën a kii daal nee nañu ñoom li ñu jàpp ci li ñu liir mais dul catégorie mooy mën na nekk entre trois mois et 6 mois ñetti weer ak juróom-benn weer soo déggee loolu mooy ku vacciné wu tey toogaat weer wala ñaari weer jël sa deuxième dose li ma jàpp mooy buñ ci tegee juróom-benni weer wala lu teg lu ci legu tegu tuuti war ngaa dem ñaquwaat kon nañu xam ni cycle bu ubbeeku la. peut-être loola tax Pfizer dugal autorisation pour troisième dose te démb si guddi laay seetaan journal gis ni Israël autorisé nañu pour ñu joxe troisième dose kon laaj yooyu am nañ sañ-sañu laaj ko parce que dañu dañu war a xam li ñuy dugg lu mu doon ak fu mu ñu jëme ñaareel bi mooy vaccin bi ku ko ñàkku ndax mën nga jëlaat virus bi léegi tontu bi ñun ñëpp am nañ ko nit dina ñàpp ñaar virus bi ñëwaat dugg ko léegi nag ñi ngi laam-laame est-ce que su ko duggee mbir bi de de de vaccin bi da koy néewal doole ba du ko yóbbu fenn fi am déet loolu nag ay étude clinique dinañ ko prouver am déet mais pour le moment li leer ba leer mooy nit mun na ñàkku jëlaat vaccin bi ba ba taux de couverture bi nga xam ne dañ naan ñii naan 60 pour cent ñii naan 70 pour cent ñii naan 95 pour cent mooy vaccin bi boo ko ñàkkoo ba noppi téeméer yu ñu ci ñàkk selon taux de couverture bi am na ci quatre-vingt pour cent yoo xam ne dañuy réagir ak vingt pour cent yoo xam ne duñu réagir waaye xanaa loolu am naa sañ-sañu laaj ko te tekkiwul dama contre vaccin loolu sénégalais yi moom la ñuy laaj euh, bi may daanelee mooy ndax vaccin bi day résister ci variant yu bees yi parce que gis nañ ni affaire bi dafa mel ni moom fi ne nii ñu ngi ci cinq variants yu bokkul ñaari mujje mooy delta bi ak lamda bi nga bi ñu ne moo nekk Amérique latine xamuñu ndax ndax euh, d'ici quelque temps ñu ne yeneen variant ñëw na gis nañu ay réew yoo xam ne demoon nañu ba vacciner quatre-vingt pour cent de leur population lu mel ni Seychelles mu jël vaccin chinois bi mais variant indien bi mu ñëwee mu ngi fay def ay ravage parce que étude bi wane na ni variant variant bi ñu am ñoom Euh, euh, euh, vaccin bi ñu vacciné wu variant Chine mënul téye variant indien bi gis nañ ko it Afrique du Sud ñoom dañoo mujj annulé AstraZeneca bi ne adapté wul ak variant Afrique du Sud kon yooyu ay question légitime la yoo xam ne Sénégal dañ ko war a laaj te ñag bëgg naa ñoom ñu jàkkaarloog Sénégalais tontu wax Sénégal yi lu leer ci question yi parce que ab peuple boo ko buggee def loo dara da ngay dalal xelam ba tax ñun li ñu jàpp mooy euh, loolu yëpp boo ko boo ko seetloo nga boole ci ni amuñu lu doy ci vaccin ñun amuñu lu doy dañuy yelwaan vaccin réew yu mag yi sax ba léegi dese na leen tuuti boo seetee statistiques yi nee nañu ba bi may arrêté euh, euh, recherche yi semaine passée nee nañu huit cent soixante cinq mille vaccin la ñu nit la ñu vacciné cinq mille doses waaye cent 865 000 doses yooyu cent 256 000 rek ñoo ci jëloon ñaari doses yi ñeneen ñëpp a ngi wër di ut deuxième dose bi mënuñu ko am foo dem ñu ne la jeex na loolu nag li mu moo dem mooy une mauvaise politique de vaccination parce que boo amee 800 000 doses da ngay vacciner 400 000 yi téye 400 000 yi pour deuxième dose doo ko dem uti leneen parce que ça nga jox nit ñi première dose. seen période jeex mënoo leen jox deuxième dose je préfère vacciner complètement pour cent de ma population plutôt que de vacciner partiellement deux pour cent de la population mais loolu c'est élémentaire ñun est-ce que am nañu politique de santé dans ce pays sur huit cent mille cas y a que cent cinquante mille jot seen deuxième dose et comme la politique est désordonnée tantôt euh, Sinovac bi la tantôt AstraZeneca yooyu amatul ci réew mi après ñu andi la Johnson et Johnson suba ñu andi la Pfizer donc ñu jëloon na AstraZeneca mënuñu jël deuxième rappel euh, Pfizer wala docteur donc comme yooyu yëpp am na fi ñi li ñu jàpp mooy euh, ñun waruñoo toppandoo ñeneen ñi seen politique vaccinale parce que feebar bi ni mu mel ni mu présenté wu fi bokkul ak ñoom waaye ñoom doole du ñu am amuñu ko. moo tax ñaari yi dinaa ko wax pass waruñoo forcer nit ñi vaccin bi waruñu forcer benn sénégalais vaccin bi nit ñuy forcer vaccin bi nag ñaari anam la mun nañ ko forcer indirectement mooy li ñuy wax pass sanitaire mooy dañ naan ah ku mu neex nga vacciné ku mu neex du vacciné waaye ku vacciné wul dootoo dugg ci car ku vacciné wul dootoo dugg ci restaurant ku vacciné wul dootoo dugg ci bureau administration ku vacciné wul dootoo dugg ci jàkka xam nga loolu mooy forcer di nga vacciné ñaareel bi mooy ñu ne nag léegi c'est obligatoire ku vacciné wul sax dinañ la tëj kaso dinañ la condamné wala di nga fay ay amant loolu waruñu warul am Sénégal waruñu koo nangu d'ailleurs mënuñu ko ndax ku amul vaccin munoo ko mënoo ko def kenn ñaareel bi mooy comme vaccin bi lañ ci am dafa néew nañ ko jagleel dans un premier temps li ñuy wax les personnes vulnérables les personnes vulnérables mooy mag ñi ñi am 65 ans jëm kaw ñooñu nañ leen jagleel vaccin bi en priorité ñooñu pareeguloo leen vacciné nga ne léegi 18 ans yi ngay ngay ngay ciblé lan ma c'est quoi le projet finalement ndax dégg ngeen ministre la santé keroog bi mu demee di jëli vaccin Johnson and Johnson bi nee na affaire bi dañ koy ubbi au 18 ans yow mag ñi vacciné gu leen te ñoom ñëpp wane nañ ni 99 pour cent taux de mortalité bi ci mag ñi la. ñi mu mun a rey ci ndaw ñi li ci ëpp 99 pour cent yi mooy ñi nga xam ne dañoo amoon yeneen jàngoro yu métti lu mel ni diabète yooyu ñuy pikiiru wala obésité yu ëpp yi wala wala donc balaa ngay xool ndaw ñi na nga njëkk a vacciner mag ñi sécuriser leen parce que xale yi il sont immunisés à 99 pour cent wala plus loolu xel war na ko mën a nangu lii mooy yi nga xam ne lu ñuy yedd nit ñi la waaye di daaneel ci insister waat une fois insister ci ndaw ñi ngir yàlla nañu takk mag maxi nañu jëlee mesure barrière parce que même suñu vacciné mag ñi ak ndaw ñi nga xam ne dañoo am facteur de comorbidité mooy dañu am yeneen yenn jàngoro suñ leen ñàkkoon ba noppi te nit ñi nekk jëluñu mesure barrière ba di dugalaat mbir mi ci kër yi même avec le vaccin mag ñi mun mun nañ ko jëlaat te ku ci amoon yeneen jàngoro mun na la faat kon nañu gën a góorlu ci yooyu lii mooy li ñu bëggoon waxtaan ak yéen mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant te di leen